situation bi jangat biñ ci am euh, yakarna du du lu ñepp mëna sétlu la donc comme le professeur je pense que dañ ko nommé c'est logique dafa bëgg affirmer woné bopom. te xam nga suñ la nommé nga am ay ambition au niveau local xam nga attaqué ku melni ni Doudou Ka loolu tamit day dara ja ci ci homme politique bu bëgg affirmer dans son dans son parti mais cette situation là elle a déjà été réglée Doudou Ka wax na ci presse nationale bi wax na ci presse locale bi ñepp xam nañ position donc euh, il a juste pris acte ci li nga xam ne loolu la ay militants am ñenn ci Ziguinchor wax ci voté wante musul woote pour ñu voté parti la créé andul ak pouvoir bi andul ak Macky Sall àndul ak Amadou Ba dafa bëgg a jiite réew mi comme ñëpp ci réew mi donc def naa loolu c'est c'est un cas déjà réglé ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ situation boobu noonu maintenant libre choix à chacun euh, boo boo bëggee wax ci Doudou pour que vraiment mu nekk li lay yokk dara jàkk yooyu loolu def naa loolu mënul nekk li ñuy tere mënul ñu mën a tere nit ñi chacun est libre voilà donc mais situation bi liñ ci mën a jàpp wax nañ ko liñ ci mën a wax wax nañ ko actualité la boo xam ne c'est derrière nous dépassé nañ ko ñun ñu ngi ci leneen daal